moo tax ma naan leen bismillah Macky Sall moo leen di xañ turu yàlla boobu moo tax ma waxaat leen bismillah ma président de la conférence des leaders Khalifa Babacar Sall su ma ko nuyoo leader le président Abdoulaye Wade Boualou. Nous sommes suñu ñaari yi nga ay référence lañ assemblée di aja ay de mbot la lion ak ajaratu Waré Sarr li ma leen di wax moy li pros di wax Ousmane Sonko limi wax loloy deug Macky Sall xamul ludul rapport de force Macky Sall xamul lu te ñemewu Macky Sall gën a ragal Ismaïla Yassine te li wax nii mën naa leen cee indil ay preuve man dama def usutéel jaar na Jurbel jaar Bambey di dem Jurbel dem Touba jigéen moo ko doo fi jaar jigéen Aminata Tall moo ko doo jëlee hélicoptère parce que bëgguma coow biir Bawol ca jamono jooju fekk na Adja Aïda Mbodj mii daan ko jàppale ne ko su Macky Sall jëlee hélico loolu humilier lu ma la dañ may humilier fii ci Bawol damay bàyyi parti Aïda Mbodj ne ko fii ngay jaax ñooñu doon ko buntu xataal démb ñooñu la defal mu roog soow tey xëy suba teel téléphoné Aïda Mbodj naan ko booy bi ci RFM laa bëgg a présenté ma mu ne ko kooku Ahmed Aïdara la tudd sama doom la may démissionné RFM démissionné mu fekk ko booru Tambacounda muy yelewaan di ma supplier Il n'y a que six mois qui nous séparent de la présidentielle Ahmed soo démissionné dire. Vous yow vous ñu vous mu may tatafu vous nit vous taxaw vous ay doomu vous ma ne xamul vous rapport de force man ñaari exemple dong la Vous di buñ ko bloqué leader yi la neex ak yeen demandez-moi le pourquoi dama dem suñ dëkk benn vendredi ma toog président aladji Malick Gakou téléphoné ma ne may est-ce que yëg ngeen ne sous-préfet bu Sam Notaire nee na liste Khadija Maye Koor ak liste Aminata Kanté rejeté na leen ci local yi ma jël oto ñëw ña nekk Géejawaay ak ñi kalaame ak ñi kalaame Sénégal yépp cour d'appel lañ dem bam des man j'ai mobilisé tout Guédiawaye ma dem fekk ko ba ci biir bureau bureau ne ko barke Mouhamad Rasulullah liste yi da nga koy valider par force wala ma taal.

dal di dugg biir ministère intérieur xex bi melni tul rek ak male mu ne dinañ ko valider par force te valider ni eh eh eh day lambatu day lambatu eh eh, ñin ñi def lolu yeb ëpp ñu fit Sonko mi ëpp ñu fit Sonko s'il vous plaît eh, eh, eh, ndigal li jib na mooy dañu koy valider par force wala ñu gàttandu ji Macky Sall fii Yoff ginnaaw suba ñëw par force wala eh ndi man man eh conférence des leaders laa ne je suis signataire Khalifa Sall ABM koy laaj leader la ñun ñëpp ay leader lañ man signataire laa ndigal li maa ko joxe valider par force wala ñu jëli Macky aéroport. valider, valider, valider, ma ne ma wuy ma city citizen fii Macky Sall xamul droit Barthélémy Dias nee na kon Dakar nangu nañ sama mani mani mani ay eh, fii ñun ñoo ko moom fii fii suñu suñu neexee dañoo toog fii ba vingt heures may ma Macky Sall son préfet et son ministre de l'intérieur ne connaissent pas le droit loolu moo tax waxuñu droit ñu naan ñu dix droit lañ ñu jox demuñ fenn bougé wuñ baadoola baadoola boo nekkee baadoola da nga koy wan ne yaa ko gën a doon et nous avons un régime baadoola pire Macky Sall olé muy créer ay emploi comme certains africains Didier bu yàgg eh Didier ma Macky Sall olé muy créer ay emploi muy lor ay doomu adam mi ko njëkkee ci président Ousmane Sonko yow nga yor ay inspecteur des impôts ku mel ni Mame Boye Diao eh, eh. man ma ne nga yor ay inspecteur des impôts yu mel ni Mame Boye yu mel ni Habib Niang yu mel ni euh, euh, Ben Saloum mi demoon Kaolack ay inspecteur eh, Cheikh Ba Cheikh Ba yu mel ni Amadou Ba waaye yow nga yor inspecteur des impôts yooyu ñuy politique jënd sa carte de membre waa ne du ma jënd sa carte de membre nga ne ko dama lay dàq lii lan mooy ndeyam dàq Sonko ne ko dootoo liggéey ça c'est quoi ça. yemu ca def enquête enquête boo xam ne ñëpp le capitaine Touré le capitaine. le capitaine Touré capitaine Touré def enquête ñëpp xam ne lépp ay complot la ay sos la pour ngay éliminer yow ci làmb ji koo bëggul bëreel nga ne doo bëreeg moom nga xëy signé ne dàq wa gendarmerie Macky Sall moomul réew mi yemoo fa Macky nga infiltrer la presse je vais m'adresser benn petit mot à mes

Macky Sall Macky Sall def ay pexe ànd ak Babacar Diagne moomu nga xam ni le sale boulot lay def pendant 40 ans naa fekk mboobu ne génnee leen Ahmed Aïdara ci ëttu presse Babacar Diagne aussi nii ay naa fekk jàppale ko ñu def lu ni ñuy segg ñi ak lii dugg na fi gën a su soyez digne kii yàlla moo fi ne ñu ngi leen di gërëm di leen sant bu baax a baax vive Yewwi vive la validation de l'autoroute